assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki taalibe yi ma bokkal sëriñ Touba maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara sama vidéo bi nag li ko waral mooy am lu ma metti lool yàlla xam na ni dama nekk ci tawat ci perfusion laa jóge waaye damaa gis vidéo boo xamante ni web tv bu ñuy wax télé Dakar moo ko def ay sketch tudde ko waajal màggalu Touba 2018 kenn ku ne xam na ni màggalu Touba buy jëm si buy jëm si dañu daan enregistré boroomi xam-xam tudde ko wàccaa yu màggal ñoom nag am nañu seen web TV bu nekk ci internet bi ñu dem wut seeni sketch wax ci wax ju bon wax ju ñaaw wax ne dañuy waajal màggal gi nan lañ koy waajale woykat buy woy musique sàngam tuubaal la jëm day dem jigéen ju sol lu bon tuubaal la jëm day dem yow jigéen ji dem sol lu bon booy siyaare jumaa ja li bon liy génn soo yaram nañ ko féetale gannaaw ndax ñii dang ki sa gannaaw yàkkamti barang bi gaaw ñoom noonu la ñuy dégtalee siyaare jumaay Serigne Touba ji magalu tuubaa nag di xew-xew boo xamante ni nun murit lu nu am ci lanu ko am Serigne Touba digle ko en 1921 wax ne nañ ko ci santale boromam ci ay bernde ci ganaar ba ba ba giléem سيد مولو مصطفى سيرين فاليلو شيخ عبد الاحد مكه شيخ عبد القادر شا صالح بجي سيدي سيرين توباي الهاج بارا سيد سيدي مختار اك سيرين منتخب مكه مي في نك يالنا في اغ لول مكه تير باني كو دولي با لغي لي ما غيس تاي كين نيمي تو بو سيطاني دا نيو رومب في لي ني واخ تيلي دكار ووت اي غوني

ñoom ñoo am priorité ndax dañuy structurer màggal gi su dee porté plainte ñoom ñoo ca gën a euh, yeyoo ci man waaye man nag amaa ma manière fi ma toll li ma man ci faj ko maag ku di murit incha danaa ko def maa ngi sant Serigne Saliou Gueye Badar mi nga xamante ni moo ci taxaw ba siiwal ko maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax murit yi nag ni leen nun day koo ci ni maa la gën a gëm sëñ Tuubaa mu xeex ak yow nun ñëpp safar bu dan dañu koy magal léegi benn fan ba ba ci fukki fan yak ñet lool di innovation yu am solo di kar nit ñi magali di leen jox ay berne lek ak naan waye nak amna samba boyo yo xamanteni jog lañu ni ñom dañ ko saboter à leur manière lolé nak dañ ci wara jog taxaw dañ ko wara safara ndax li mag ña topone Serigne Touba bi Serigne bi wote magal serigne Moulay bu sa ñom lay ku leen waxoon tey ni leen waajtaayu màggal gi am na ñu jóg di wax ne nañ ko maajale waajale nii ñoom ñu weddi ko te nun ñi de képp na ko képp ko ci tuddoon waajuram wala nga saaga ko mu jaay la bakkanam te sëriñ Tuubaa moo nu gënal suñuy waajur ñun bokk ñoo ñi nga xamante ni dañ naan maa ngi sant yàlla ak yonent sama ñaari waajur ñun dañuy sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa doo ko sant suñuy waajur sëñ Tuubaa li mu li munu mënal suñuy waajur mënaluñu ko sëñ Tuubaa yaakaar kon nag bisam bii nga xamante ni moom nee na lu mu am ci la ko am ci la ko nasaraan bi jëloon ni daf koy sànki génnee ko Mbàkke Bari fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar doon le 10 août 1883 1895 te moom nasaraan boobee ko jëloon dey moo dem ba ci biir mu wàññeeku ni jërëjëf Serigne Touba slogan Serigne Modou Kara ni boobu ñoom tubaab yi ñoo ko njëkk a wax bërki démboo laa jóge Paris ay document ngi nii yoo xamante ni ci archive nationale de France laa ko jëlee ab journal la ngi nii

sant ki Serigne Touba tagg ko ci ba noppi xarab ci président de la république française wax ko ni ko yow day du Bamba moo la gën a doon jàmbaar fukki yoon loolu nañu wax ko ci Serigne bi te ñoom day ñoo ko jëloon ni dañ koy sànki ñu ngi leen ba vingt-et-unième ñu gis ni Serigne Touba gisatuñ ko gisatuñu doomam yi keroog ba Alaaji Baara toogee am na kilifa goog dañu woon am na ñoo xamante ni bii day dañu naan yoon wi léegi lu neex waay def ndax sët ko dese te kaani dey doom ba nekk ci biir moo war a gën a wex kon nag samba surabaali si tekkiwul dara jël magal gi diko ko diko di ko théâtre ni luway bon leen ko yóbbu Touba yende boy bo ngeen laxasu ta xamne man mangi seen kaw luma ci nak gobe gar am lu ay menace du dara mbay gi sil la tuddu yaakar borom darul moti dekk fi ci darul mooti yeen wa Télé Dakar ñi ko don def bettuma leen kuma ci gis dina la jaay sama bakkan di nga jël sama bakkan wala ma jël sa bakkan ku ko gis naan violence lay wala je m'en fous képp koo xamante ni fekk nga xaqida gëm-gëmi doomu aadama nga di ko foye lu la ca fekk yaa xam yoonu murid li mu représenté ci Sénégal màggalu Tuuba li muy généré ci ay milliards ay filio di puttaana du duma ko wax ci wolof ay ixu di putta yoo xamante ni bii tekki dara démb ak tey jóg di fooye bay wax ni booy dem di siyaare Serigne Touba wax ca wax ju doy waar ñoom ñooñee nag ñoom day bàkk nañu njàkk man li may wax ni sa n'engage que moi danaa koy waxal murit yi nag ku ci mën a ànd ak man baax na ku ci mënut a ànd ak man nga seetaan maag sama yëfi bopp lay laa koy def man ndax ba may jébbalu tàgguwuma kenn damaa si yenteeg sëñ Tuubaa contrat indéterminé te lii bu nu ko seetaanee ay institution ñaata nit lañ fi tëj offense à un chef de l'État ñaata nit lañ fi tëj offense à un magistrat waaw un chef de l'État ab institution la magistrat yoonu murit lan la màggalu Tuuba lan la ba ay ñu tekkiwul dara jóg di ko saboté ñu di ko seetaan kon comité d'organisation bi maa ngi leen di interpeller yéen de bu ngeen porté plainte dana gaaw lool waaye bu ngeen ko deful man ak taalibe yi ci mel ni man danañu jóg saafaraal ko sunu bopp ndax ñu ko def lu ñuy allemand lu ñuy japon lu ñuy chinois ay sénégalais lañu ñu ngi fii réew rek moo leen jàpp léegi gis nañu ni youtube loo fa dugal te ñu seetaan na lu bari au fur et à di ko seetaan da ngay am xaalis tax na lu bon lu nekk ñu jël ko ni nañ ko essayé ndax nu am xaliss ndax ñu bari seetaan ko youtube faynu nu tax ñu jël tey màggalu Touba diko ko ba wax ni lu bon le nang ko yobbu Touba kon nak defaru len tax ni ne man day maangi ñew ak ku nungo and ak man lol daal la ni woon danaa len ko wax yeen mouride nak maangi len di ñaan li ñi wax télé Dakar bu len ko xolati na ngeen ko bloquer bu bu site boobu bu ci kenn demati ndax seen yi ñi def yeb bëgg ku leen am xaalis nga tax waye nak ndagam Serigne Touba lañ jël di ko fooyee te ñun day képp koo ci xamante ni amoon nga ngénte wala céet luye say baas ak say bank defar ko ba noppi nit ñëw daaneel baas yi dàmmate bank yi nga yóbbu ko ci yoon porté ko plainte xew yi nu dëgmal di di di màggalu Tuubaa nag moo gën ci nun ngénte gën ci nun ak céet kon ku jóg bëgg koo saboté doon war a jóg dal ci kaw doona war a jóg dal ci sa kaw loolu nag moom laa bëgg mu leer waa Télé Dakar ni leen xam ni ñoom day bàkk nañu njàkk ñook ñi doon joué yooyu yëpp day ku ma ci teg bët da nga jël sama bakkan wala ma jël sa bakkan nag maa ko wax lu ma ci góobe gar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu